sénégalais sa xel dalatul képp kuy sénégalais am na loo xam ni yaa ngi koy yëg te loolu nag ñun ñi nga xam ni ñooy njabootu leaderu coalition benn bokk yaakaar dañu ni jox na nag ñu taxaw jot na nag ñu taxaw ñi nga xam ni tey ñooy incarné opposition di ko gàngat pour taal Sénégal di wax lu yàq jikko sénégalais yi di wax luy détourner jeunesse bi tey ñu taxaw jàkkaarloog ñoom mais surtout wan leen ni fii ci Sénégal am na jeunesse boo xam ne am nañ expérience politique am expertise politique mais ñoom tamit pare nañu pour sàmm réew mi pare nañu pour sauver réew mi pare nañu également pour jikko yi nga xam ni moom la ñu xame woon Sénégal jikko yi nga xam ni moom la ñu xame woon Sénégalais yi mais également ni ñu doon politique yi di ko teg ci mën naa ni débat d'idées muy loo xam ni ci rafetal la ci sellal la mais également ci orma loolu ñu préserver ko ci Sénégal si ne Sénégal fi mu jëm fi ko ñenn ñu jëmale ëllëg ay regret mën na ci am te loolu defe naa nous n'avons pas le droit ñun seetaan nous n'avons droit de laisser faire ndax ñi ne nag suñu kanam mën nañ ko defanteeg ñoom ndax ba ñuy politique politique xam nañ leen xam nañ lan lañu ñu tekki ci réew mi xam nañu lan lañ ci réew mi ba tax na kon nous avons nous ñi nga xam ni. ay ndaw la ñu ne ci biir coalition bi ñu tax loolu moo tax a jóg tey mën naa ni euh, mën naa ni conférence de presse bi mais également looloo tax ñun ñi nga xam ni membre comité d'initiative bi la ñu ñu ne nañ jàkkarloo presse bi yëgal leen li nga xam ni mën naa ni mébét nañ ko mais également tontu ci yenn yoo xam ne ay kàddu la yoo xam ni dégg nañu ko fan yi pour Ousmane Sonko ñaar lay wax ci moom. Ousmane Sonko ci déclaration bi mu def ci seen manifestation àllarba mën naa ni dafa attaquer les fondamentaux de l'État attaquer ñi nga xam ni ñooy incarner la démocratie sénégalaise ndax ñoo ko xeex démb laxasaayu ba tey démocratie egsi fii bi mu njëkk mën naa ni attaquer muy les institutions de la République muy la présidence de la République ak le conseil constitutionnel il faut que Ousmane Sonko ñu wax ni ko ni muy mbaam mbaam loo il faut ñu lawbe lawbeloo comme moom dafay mbaam lu il faut ñu lawbe lawbelu comme moom cette rébellion agissante cette rébellion entretenue doit être éradiquée rébellion bi muy jéem a incarné xamuñu rébellion sénégalais lu ñuy def ci débat d'idée ci waxtaan ci xalaat lañ ko mas a defee li ñu fiy jéem a incarné nag comme yeneen opération yi am feneen noonu lañuy ñuy seen cette rébellion ba mu set wicc ba mu set wicc ci seen politique ndax mënta wëñ ba tax na kon ñi mu attaqué su démocratie Sénégal tollee fii tey yàlla ak ñooñu la su fekkente ni moom tey dem na ba am fit naan day politique mais également di am yaakaar ci réew mi ba naan da koy day prétendre jiite ko yàlla ak ñooñu la ndax ñoo ñoo xeex démb ba Sénégal egsi fii tey ba tax na kon ñoom orma orma ak respect lañ am ci ñoom soo jëlee président ñas li ñuy bàkkee président Senghor mooy il a réussi à bâtir une nation mu réew moo xam ni ñëpp ormalante ñëpp respectante ñëpp a jàpp seen bopp comme seen moroom defante ay nawle ba ñu tabax réew mu dëgër muy le Sénégal ba xam ne tey ci àdduna bi lañ ko nawee ndax ñun li ñuy dundee loolu nag suñuy maam ak suñuy maamaat ñoo xeex indi ko ba tey Sénégal ñu koy naw ci àdduna bi loolu Ousmane Sonko ndaw na lool pour yàq loolu Ousmane Sonko ndaw na lool pour indi fi guerre civile usmaan sunk ndaw na lool pour jël jeunesse bi naan nañu attaquer les institutions wala nañu attaquer ñi nga xam ne ñooy incarner la république Ousmane Sonko ndaw na ci. dina dem bàyyi réew mi ci jàmm ndax dafa ñëw fekk fi jàmm dafa ñëw fekk fi dal ñun ñëpp ñu nekk ay cousin nekk ay frère nekk ay sœur di ormalante am dëkkin wu rafet ku dem ci yeneen dëkk yi xam ne li ñu am Sénégal mën naa ni c'est un don de Dieu soo génnee fii rek suñ dëkk yi ñu wër nga xam ni ba léegi am na yoo xam ni. ay mën naan tribalisme moo fa am te Sénégal amu fi loolu kon Sénégal macha allah lu ñu am suñu maam yi mën naa ni xeex ko ba jox ñu ko du Ousmane Sonko ko mën yàq ndaw na ci lool kon Ousmane Sonko dafa war a xam boppam prétention bi muy waxee réewande gi muy waxee injustice bi muy waxee Ousmane Sonko nañu wax fan la ko jële du ci baay du ci ndey du ci alal du ci xam-xam du ci dara. lan nga mën a mën yaa moom sénégalais yi yaa moom jeunesse bi di wax ak ñoom di joxe ay ordre mel ni yow réew loolu dafa war a dakk Ousmane Sonko il faut mu dakk mais loolu mënta wéy su ma seetloo ñun fi ñu jaar ak président Abdou Diouf on était jeune étudiant on se battait pour l'amélioration des conditions d'étudiants des étudiants a l'université mais dans la ñu ñuy déglu yu ma rappelé André Sonko dans le calme la courtoisie nous écouter ñuy wax problème mu étudiants yi président Ablaye Wade ñëw ñu continuer moom noonu ba tey étudiant bu amul bourse da ngay am aide tabax UCAD 2 di xeex ñun noonu lañ laxasaay woon pour jàppale Sénégal jàppale jeunesse bi ba tey résultat yaa ngi nii Ousmane Sonko mënul fi nii birig bii moo ko fi teg mënul ni lii moo ko indil jeunesse bi mënul ni lii moo ko indil Sénégal ba pare bëgg a taal Sénégal mais fan lañ jëm je ne comprends pas c'est man. su may seetlu 30 ans de politique laa def ma ni 30 de politique laa def mosuma seetlu gis lu mel nii mais également lan la fi Ousmane Sonko mas a yëkkati mas a wax wala mas a teg pour lu jëmal Sénégal kanam ba tey bëgg na day taal réew mi on ñun Sénégal liñ ñu xamee liñ ñu xamee mooy yar liñ ñu xame mooy orma li ñuy xamee mooy waxtaan Sénégal dañuy waxtaan dañuy wax discuter sax ba degante dënn mais violence suñu xam ma suñu jàppan masuñu xam yenn yi kon il faut que cette culture bi nga xam ne Ousmane Sonko bëgg na ko jox Sénégalais yi surtout jeunesse bi loolu ñu génn ko seen xel ndax Sénégal xamuñu loolu xamuñu rayante xamuñu euh, ñàkkante orma mag suñu mag ñi dañ leen di ormal xale bu bëgg barke da ngay ormal mag xale bu bëgg gudd fan da ngay ormal mag ñu loolu la xam loolu lañ suñu wayju yi yare loolu lañu màggee mais ñoo xam ni amuñu yar amuñu teggin amuñu xam-xam amuñu euh, mun naa ni mun naa amuñu lenn lu ñu indil réew mi yàkkataan xale yi moom loolu moom dama ni il faut que Sénégal dafa am sam benn xarit daf ma un jour ñuy waxtaan mu ne ma mais il faut ngeen bàyyi que Sonko ci viole bi ndax léegi ñu bëri lañ naan non ndax góor la ma ne ko non ñiy wax sax ay góor lañu fi kenn du fi am na ay jigéen nag mais ci suñu sœur a ngi nii mais ñuy wax ay góor lañ comme moom du question nekk góor nekk góor dëgg mooy respecter jigéen ormal ko soo gisee jigéen bëgg ko nga waxtaan ak moom ci sart yi ñu wax nga dem takk ko kooku mu lew doom kooku loolu lañu loolu lañu góor mais loolu lay góor tey ñi nga xam ne dañ naan dañuy defaan Sonko ci viol bi mais su violé woon seen sœur duñu defaan ñoom suñ doon ay jigéen mu violé leen duñ doxee noonu kon te loolu ñun loolu nga xam ni suñu réew mi même su amoon ku mas egg ci kenn dañ ko doon suturaal ormal ko ndax bëgg nañu lépp na ci sutura tey Ousmane Sonko moom ne nee na leader bëgg a jiite réew mi on l'accuse de viol il sa permet taxaw di jàkkaarlook sénégalais yi di ko justifier kon man mel naa ni dama ni Sénégal ana suñu valeur kersa yi. ana suñu valeur orme yi ana li ñu fi suñu maam yi loon kon ban model ban référence la Ousmane ko mën a nekk pour la jeunesse wala yi nga xam ne tey moom naan su demee sax naan day jiite Sénégalais yi lan lañ koy wax lan la leen di wax est-ce que war na mën a xool Sénégalais yi ni leen jox leen ma seen baat kon ñun il faut ñu xoolaat suñu bopp Sénégal ñun xamuñu lii Sénégal lii xamuñu ko. Sénégal ñun lii xamuñu ko woon kon ci loolu ndax man sax gis naa ñu naan yeneen jigéen di génn naan dañu ragal a wax ak mais mas def na lii def na lee kon Sonko daal li ñu war a def dañ ko war a xarafalaat dañ ko war a jongalaat nga xam ni mais bii paa nag lépp la ñu dakk daal du def pour sauver suñu sœurs pour sauver suñu sœurs yi ndax loolu moom dafa xaw a ëpp ndax ñun Sénégal ñun Sénégal ñun Sénégal dañoo fonk jigéen dañu fonk jigéen ndax jigéen mooy suñuy wayjur mooy suñuy yaay mooy suñuy sœur dañ leen fonk dañ leen a kon ñun dañ leen war a préserver dañu leen war a protéger te loolu muy état bi di famille ku nekk am na responsabilité pour préserver et ormal suñu jigéen beneen bi mooy Ousmane Sonko a les mais entachées de sang Ousmane Sonko est wax na yàgg naa ko wax Ousmane Sonko est le seul responsable des quatorze morts yi nga xam ni ñu amoon au mois de mars passé xam nga man dama leen di wax loo xam ni dama ko dund man dafa am expérience bu ma am Thiès président Ablaye dafa doon jaar dafa doon jaar benn responsable PDS wax ni dañuy accueillir Ablaye Wade jubilé temps yooyu Idriss Seck mu ngi prison man leen ñun waa Thiès ñu accepter président Idriss Seck nekk prison Ablaye Wade di jaar cees ngeen naan da ngeen di jubilé moom ma rajo laa jël rek de ma ni non loolu manifestation PDS boobu ñun ñoom ñoom dañuy jubilé ak Wade mais ñun dinañ ko accueillir à notre manière mooy dinañ jooy dinañ ni ko ñun libéral suñu wayjur ni libéral suñu responsable muy président Idriss Seck ñaari xeer moo jóg ñaar ñaari xeer mm-hmm. ñu jàpp ma prison on m'a emprisonné six mois de prison amul mort amul blessé amul dara ñoom ñoo ni dañuy feete Ablaye Wade waa PDS man leen man du ma man ñun dañuy jooy ndax dañu bëgg nga libéré président Idrissa Seck waa Thiès seen doom nee nañ nga libéré ko waa Thiès ñaari xeer ñun te daw ma de maa ngi sama kër ñu ne ma saw kàddu googu yaa ndax waa génn sànni ñaari xeer ñu jàpp ma emprisonné ma six mois quelqu'un qui n'a pas maîtrisé son pantalon se permet, après avoir commis un acte répréhensible, se permet de faire une déclaration pour se sauver, suivi de 14 morts. 14 ay bakkan fukki bakkan ak ñeent ci loolu pour protéger boppam daan ni ñëw leen ce sera un combat mortel woote ko ñëpp gis ko dégg ko mu am 14 morts ñu bàyyi ko muy traîner di dox di dem. jeunesse bi nag mu bëgg ni jeunesse boobu wala jeunesse bi moom mooy seen donneur d'ordre wala moom moo leen di mooy seen référence mooy seen modèle ban model la fi ko war a jël koo xam ni ay loxoom dafa takk deret fukki nit bakkan ak ñeent ci conscience am moo tax man ñenn ñi peut-être duñu ay nit ndax nit rek nga blessé ko wala dara waroo am conscience tranquille astama ak ay moor fukki nit ak ñeent nekk sa conscience yow nga xam ni yaa tax ñu génn àdduna tey famille yooyu fan lañ toll tey famille yooyu tey fan lañ nekk jeunes yooyu tey yal na leen yàlla jërëm mais est-ce que kon tey jeunesse bi war na nanguwaat pour des intérêts personnels de Sonko ak ñi mu àndal di naan dañuy dem sacrifier waat kon la jeunesse dafa war a am conscience war a prendre conscience xam ni ils ont tout leur avenir dans ce pays Moi, quand je vois le président de la République au quotidien di engager le gouvernement di encourager le gouvernement pour ñu gën a jël en charge la euh, problème mu ci formation ci liggéey ci entrepreneuriat ak li mu ci def yëpp comme initiative suivre ngeen yéen ñëpp euh, conseil présidentiel bi ñu def mu dégagé cent cinquante milliards par an suivre ngeen soixante cinq mille emplois par an. daal di dugal 67 milliards de financement pour les jeunes bërki dem rek la sama collègue Dame Diop jóge Kër Massar def Pikine ñun ñu installé dans les 45 départements les pôles emploi jeunes yi di dem ñu leen di financer gis ngeen reportage yi ci télé yi ci réseau yi résultats yi nga xam ne mu ngi koy joxe kon la jeunesse a tout son avenir dans ce pays et devant lui kon ñun ñoo leen war a accompagner encadrer leen kon jeunesse bi dañuy leen di invité ci plus de de de de d'espoir plus de de de de sérénité mais également ñu jege instruments yi nga xam ne état bi mettre na ko en place pour accompagner donc euh, la jeunesse. ba tax na jeunesse boobu war ñu topp Sonko ci appel à la violence muy def ndax Sonko a fait un appel à la violence un appel l'insurrection mais loolu li mu mën a indi ci Sénégal mooy rayante te ñun Sénégal xamuñu rayante ndax su ne. waaw même yenn nervi yi wala kër kilifa yi xam nañ leen ak Sonko oublie que seul l'État seul l'État moo am la le monopole de la violence légitime moom day fo day fooye loo xam ni su ko xamoon dina def ndànk déjà humainement nit moom fii kenn ëpp fi mbokk kenn kon koo fi attaqué xam na ku la ku ko attaqué xam na fu muy fayu kon moom war a def na def ndànk deuxièmement l' état qui a là de la violence légitime kon dafa war a xol li muy wax moo tax ma ni est ce que Sonko wér na wala est ce que moom xam na li muy jéem a dugg la kenn waxoon lii tooy ci moom lay jóge côté boobu moom bu boobu mu xam ko bu baax lii tooy ci moom lay kon ñun nous sommes sereins et dans ce pays xam suñu histoire démocratique xam fi Sénégal jaar xam ni sonk ndaw na lool daan ni élection du fi am ndax su fekkente ni ñoom ñoo war a mere seen bopp ndax su fekkente ni respecté wuñu li nga xam ne moom la loi tëral la loi électorale ba pare tey daan ni élection di fi am Sonko ngi wax lu ko neex te dëkk bi nag kenn du fi lu la neex fii dëkk bi ay loi moo ko régir ay loi moo koy doxal loi électorale mooy wax nan la ñuy organiser élection ca tàmbali ba bindu ba ba ba ñuy joxe résultat yi loi électorale boobu nag soo ko respecté wul loolu ci dal meral sa boobu te man waxoon naa leen bind naa fi article daan ni affaire amateur yi ndax man dama leen a xam ñi nga xam ne ñoom ñooy yor seeni liste muy ñoom dama leen a xam ba ñuy politique politique uñ ñenn ñi sax dañ leen a jàngal politique teg leen ci ay raay wan leen encadre leen ba tey ñu egg fi ñu te egg moo tax yenn saa yi damay moo tax soo dul wax malheureusement dans ce pays xam nga nit moom comme on di les hommes c'est comme des lapins ils oublient très vite il faut toujours rappeler da ngay rappeler am na ñoo xam ni il faut ñu leen rappeler l'histoire am na ñoo xam ni xamuñu fekk wuñu dem wala am na ñoo xam ni peut-être sont jeunes moo tax fekk wuñu wala xamuñu dem il faut rappeler l'histoire fii ñu ne ci coalition bi benn par benn ku ne mën nañ la wax sa histoire sa jaar-jaar mais fii man jàpp naa dans cette coalition de l'opposition ñi ciy référence ndax mën nañ leen wan ci ay wàññi ci ay bout ay du bout des kon ñun amuñu loo xam ne ñun mën nañ ko jàng ci yoon au contraire mais moo tax man nag li leen daal bettu ma seen amateurisme bettu ma seen cuune bettu ma ndax xam naa leen kon ñoom nañ mere seen bopp sonk su ne élection du am ci réew mi day wax lu ko neex élection yi dinañ ko organiser campagne bi incha dina dem ci jàmm dinañu gagner élection yi am une majorité écrasante à l'Assemblée nationale te Sonko du ci mën dara ñi mu àndali duñ ci mën dara ndax ce yi dinañ ko gérer stabilité bi dinañ ko assurer Sonko ndaw na lool pour indi instabilité dans ce li muy gàngat Sénégal ci ay rayante ci moom lay yem ci moom lay yem ndax Sénégal yi duñ ko ci topp ba tax na kon ci côté boobu dama leen na bëggoon rek Euh, rappeler que li nga xam ni euh, moom laa leen wax sànq ci symbole yi nga xam ni ñoom la doon yi nga xam ni ku xam seen jaar-jaar ku xam seen parcours ci seen apo ci démocratie Sénégal ñooñu ku leen gis wala leen a ormal wala leen a respecté wax naa sànq président Senghor li nga xam ne moom lañ koy bàkkee mooy dafa tabax une nation une nation nag mooy ñoo xam ni dañoo nekk benn bokk une bokk même ambition de vivre ensemble mooy bokk ndey bokk bàyyi joxante loxo président ñas nag ci loolu la màgge ba tey malgré son mu laxasaayu ne ci wetu président Macky Sall pour jàppale ko di ko euh, mën naa ni conseiller di bokk ak moom expérience bi nga xam ne yàlla may na ko ci état kooku yàlla daf ko ormal yàlla daf ko sagal ba tax na ko ñun ndaw ñi dañu war a jàng ci moom dañ ko war a ormal mais également sàkku ñaan ci moom président Idriss yi dégg naa mu koy tooñ te fekk damay fàttaliku Sonko bi mu nekkee ci seen syndicat boobu su bëggoon a gis président Idriss Seck da doon jaar ci suñ benn xarit bu ñuy wax Badji benn cousin ak Badji bii sax donc doon ñëw guddi di seet si président Idriss ak respect ak orma bu mu amoon ci moom moo tax ma ne Sonko peut nit ñee ko bëgg a dofloo peut-être mais ni mu changé sax daf maa jaaxal ndax respect yi mu amoon ci nit peut-être ak Adji Sarr koy bëgg daal wante li nga xam ni daal mën nañ ko wax mooy Sonko du président sa Seck du président Macky Sall du président Moustapha Niass ñoo ay moroomam wala ay màqandoom ñooñu ay baayam lañu wax naa ni benn bis Sonko ak Barthélemy Diaz président Macky Sall ñoom président Idrissa Seck li ñu def ci réew mi seeni jur defuñu ko fi pour réew mi jëm kanam kon ñooñu seeni bàyyi lañu seeni bàyyi lañu orma lañu war a am ci ñoom attaqué Idrissa Seck nag dans ce pays moom ci mbiru démocratie wala ci luy ci patriotisme ku bëgg réew mi defe naa ni su dee am na koo xam ni moom la ñu war a jël en exemple mu sacrifié wu mën naa ni 30 ans de vie politique. pour loo xam ni rek na démocratie jëm kanam fàtte boppam pour jëmale Sénégal kanam fàtte boppam pour ñeneen ñi président Idriss Seck la loolu moom dans ce pays nañ ko ko reconnaître ndax moo fi ànd ak Ablaye Wade moo fi ànd ak Ablaye Wade pendant vingt ans vingt cinq ans ak Ablaye Wade jël pouvoir ñu dugg quatre ans mu génnaat toog dans la dignité traversé seize ans ba deux mille vingt bi la duggaat ci ànd ak président Macky Sall jàppale ko kon defe naa ni ku mën a def 30 ans 40 ans d'opposition dans la dignité dans la dignité en gardant valeur kon président de Seck moom gàcce nga am kon moo tax man sonk su ma koy wax gis sax damay dama naan non c'est pas Sonko peut am na lu mu perte ndax defe naa ni waroon na teg bët ci président Idrissa Seck ci en terme de valeur de patriotisme ak doxalin pour moom tey ci carrière politique am mais rappelez-vous en 2004 2005 bi ñuy bi ñuy dem ñun ànd ak moom jëm dikk mais so kii maanaam yi ci la tànkam ba damm woon bañ jaaree tànk oto bi jaar ci tànk mais keroog su président di seeg bëggoon mais duñ egg Colobane jour boobu muy biir muy Dakar comme biir Sénégal ñaata nit ñoo doon déglu parcours bi di jooy seen kër yi ñaata nit ñoo doon mën naa ni keroog Sénégal kenn añut Sénégal keroog xel yépp a jaxaso mais mu ni moom comme Ablaye la mu doon wax nag. du ma jaar ci ay cadavre pour egg au mais li ñu gis sonk di doxale li ñu gis muy wax moom il est prêt à marcher sur des cadavres pour arriver au point il n'arrivera jamais au jamais jamais moo tax nag il faut que ñun ñëpp ñu laxasaay il faut que ñun ñëpp ñu takku